waaw saa waay tey barke Rasulaay Sénégal depuis 2002 ba léegi nii mooy loolu mais Sadio Mané kontaan nañ ci moom jaaraama Sadio Mané. barke yonent bi kontaan ak mbégte moo ñu jaral Sénégal moo ñu jaral lii tey parce que fi mu dañ faa gëj dem barke yonent bi. waaw ci victoire bi rek di wax euh, mais ñaax parce que xam nga. xamante ni du yogg-yogg moo koy mën a may nit tey jii fulla ak fit ak jom gi ñu wane ba tax ñu àgg final bi dañuy gën a wane li nga xamante ni mooy jom pour ñu mën a àggale suñu ko lañ ci doon xaar aussi damay wax joueur yi rek du courage te ñu xam ne des na nag incha allah te gëm nañ ne incha allah dinañ am nan dinañ andi ndam li fii. waaw ah mais xanaa ñu gën a yokk moral yi rek gën a gën a gën a bàyyi suñu effectif noonu xam nga bàyyi wax ju xam nga du bàyyi gars yi liggéey li ñuy def baax na quoi li ñuy liggéey baax na nañ bàyyi suñu tactique noonu xam nga di di teel a def changement yi xam nga gars yaa ngi ci niveau de zéro bi ñëpp a ngi fi. ñaan yàlla Sénégal jël coupe bi indi ko si Sénégal bi su

mais Sénégal fi mu toll nii euh, nit ñëpp ñoo si war a jàpp lii boo ko gisee Tivaouane veut dire que euh, fierte Sénégal warul yem Ndakaaru rek du Ndakaar rek mooy Sénégal il faut ñuy ñëw Tivaouane di gëstu xam ni dëkk yëpp ñoo bëgg Sénégal surtout loolu xale yi la jeunesse tivaouanoise ñëpp vraiment fierté bi ñu àndal tey ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di remercier nag surtout l' entraîneur Alioune Cissé

ñun commerçant yi ciy gis suñu bopp yooyu noonu mais yaa ngi génn sàng gis nga ji Sénégal gi yëpp bokk ndey ak bàyyi kon football am na doole noonu gën a góorgóorluwaat te yàlla suñu borom tàppee nu xol yi daal. kon doom benn jàppalante suñu biir ñu gëm ko rek bu ñu ko gëmee rek nañ ko jël incha allah ñu bàyyi soxorante beeg iñaante beeg yooyu noonu. Aliou Cissé maamee lu ma koy ñaax muy mu gën a góorgóorlu moom tamit muy teel di def remplacement parce que temps yi bi mooy loolu quoi. Mbaye Niang mi mu jël nag teg ko ci kaw na ko na dugal saa yi tuuti nag Mbaye Jaaj bu dee Mbaye Niang daa am lu mu la bokkal boo nga wax ñu ko. allez les lions allez les lions allez les lions allez les lions trois fois kontaan rek ñëpp kontaan nañ paa yeeg maire yi kon ñëpp a kontaan nañ koñ bi ñëpp a kontaan dëkk bi ñëpp a kontaan marché bi ñëpp a kontaan Sénégal ci kaw ci kanam ci lu baax ndam rek jël coupe bi. Alioune Cissé moom instant yi moom li ñu koy ñaaxe mooy di ko ñaanal rek yàlla def ndam li waaw comme ni ko ñëpp waxee rek ñëpp a waaw ndax li doon xaar 2002 ba léegi macha allah ñëpp a bëgg bëgg nañ ci Aliou Cissé Sadio Mané di ko ñaanal ci lim jëm Ballon d'Or mu jël lépp bëgg nañ lool defagul dara nag mais kontaan nañ bu baax a baax ndam gi neex na gànn gee ak jour yëpp def nañ li war ñu ni nan génn ñëw jënd ci mayo yi ah supporter jënd ci barazaay lépp neex Sénégal jël coupe bi ñu feere ko ci jàmm ak salaam merci waa Tiv info